weeru kode de yegsi na mau gaan gu bëri naa mau mooy weeru ci koro jamak ak taw feex Alhamdulillah, leen di ñaan alhamdulilah man maa ngi santaat bi ñu yàlla mayee ñu dund fekke waat na suñu Elen ko def ñu lolo ñu Assalamu Assalamu alaikum. Go!

Yeah!

day wax deug yalla jambar ngeen de <laughs> koor gi comme yalla def na accident ba mhm. fi ciow coow bëriw fi sant yalla rek alhamdullilah sant yalla kay dangaa nga di mom rek mom deug yalla ah <laughs> góorgóorlu na ah, jambar ga de jambar ga jambar ga ah waaw sha allah ah ren mom ma sha allah wax dëgg yàlla ah, ah? kilifa la dafa yàgg a woor waaw ah, waaw moom moom ñeme wor moom waaw dafa ñeme woor bokk na kenn kuy dugg ci biir néeg ñu koy jox sombe sombeeg royu muy naan lolu la kat moko fi def ci kër gi da nga jakkalok set seet kër gi nga gis kuñ fi sombe wala da nga jakkalok set wala Ah. nekk sa bopp nga xam. Eh, ñaar ñoo xam naa ne moom ku ñëw ci kër gi day yaakaar ay wujjug la nii la dëkkandoo jàmm ca gën. Mm-hmm. dëkkandoo jàmm ca mm-hmm. ndax yàlla dogal na ñun ñëpp benn lan. Mm-hmm. depuis daaw ñu ngi nekk. Eh, yàlla defal na ren musul nañu ci lépp lu yàq yàq. alhamdulilah rek léegi nag. li fi moo ñu xaar rek. yàlla mën naa def. <laughs> ndam li ah, ah, day ñëw sax koo gëm. Eh, day ñëw dama koo gëm de. day koo gëm de. day ñëw jëndal nga ma drapeau rek. yàgg na ñëw nañ drapeau. di lan la ni lii lan la da ngay tiital nit. ah góore. saraxe. waaw. chef. merci jërëjëf jërëjëf. <laughs> jërëjëf. saraxe yow. alhamdulilah rabil ah. alamin. yi manqué. waaw. banaan. dana bëggoon yàqu. waaw. moom laa yóbbu ma fay si ginnaaw. banaan. waaw banaan. loo ko def. ah. sa ma tëmal si ginnaaw. booy xëjoo waay. ah kon baax na comme booy jot nañ ci ah, jigéen gis nga ma bu jigéen. taalibu bu jigéen fan la am ci réew mi. waxoo xale bu jigéen laa la wax. Ah, xale bu jigéen. pour ma taalibu bu jigéen wax. ah xaaral ma sax ko taalibu. wallaay wallaay moo ko tay de. yóbbul orange bi saraxee yóbbul ma joxal ma xale bu jigéen ngay jox ay bu jigéen. orange maa jékki-jékki rek baax na yóbbul joxal ma ko. xale bu jigéen orange bee ko lekk. da koy bu ma ko lekk. bu ko lekk. waaw baax na mën nga def. dama sama faw kay. sa. ah ah demal xaaral a kii damay tëdd. bañ ci réew. jàppale ko waxee. ah jàppale ko waxee yow man xam ne xaay dinaa jënd ko waxee. ah waaw damay yaa waxtaan ak xale bàyyi tàppante geeg bëre gi nag. xale bi war na la xarit la xam naa ne boo dee yaa ko paccal bu yàgg yow. ah waaye lool kenn du ko wax xale nag loolu dee su ko ah? kër gi nee na ah, kër gi kay waxuma eh, rasal maanaam ci waxtaan lay waxee. dama ah. mën a waxtaan. <laughs> loolu lay wax damaa jógee foofu. alhamdulilah rabbil alamin man dara foofu. jeex <laughs> na alhamdulilah waaleykum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 ñu ngi fi rek ñu ngi fi ñu ngi sant yàlla barikalla en fait euh, waaw <laughs> oh, jërëjëf boo demee ne di préfet maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm taxawaayam ci dëkk bi rafet na macha allah nee ko moom manqué woon nañu préfet bu mel ni moom da ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam alhamdulilah rabbil alamin boo demee nga nuyul ma ko baax waay nee ko bu soobee yàlla bu nu paree ci yëf yi rek danaa fa ñëw nii si ko danaa fa ñëw nii si ko jërëjëf jërëjëf doo ko woo mooy affaire boobu ngeen di langoo yéen kii. waaw mm. loolu après loolu après lay def ko muy wëkkal ko après moom mooy waar. Eh. Ah, ah, dégg naa ci lu ne nag. Ah, dégg naa ci daa lekk xaalis bi. dégg naa ci joxul waat. déedéet déedéet bàyyi ma man bàyyi ma nag déedéet déedéet. jërëjëf man nii laa mel ku ma defal lu baax nga doon jaan mat. bis bii du bisu nettali. bisu ku ma defal lu baax rek nga ëlbatiku doon jaan mat. may leen ko may leen ko yàlla baax na may leen ko. Mhm. te Tafa. Hmm. maa ngi koy fay nañ ko sax. maa ngi koy fay gis na sa taxawaay si gox bi. a naa la ko de. <laughs> neen sa liggéey rafet na. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. aso social yi ngeen si pañ. allahu akbar mais. Hmm? du réer borom. mais mais. mais man la. mais mais mais mais. du mais bi ngay xalaat de. Ah? xanaa du mais boobu du mais boobu. xale yi ñooy liggéey man de mais man la. nee na am na luy ñuul si soow walum lomotif lan motif yow wala ba ba na jang lool lettre bi ki ne li li ah nga té li naan ay buma buma wax ñak ngeen yar torop ah ah li leer ma li yow leeral li awa ki yow waaw waaw neena wax deug yalla xam ni kilifa nga mhm. te kilifa amna lu mu mhm. lay fal chef de quartier mhm. da ngaa war set wecc ci suuf ba nit mënu laa jam rabbil alamin waaye nee na. Mhm. <laughs> li la faqastal mooy sa vidéo lomotif yi ñu koy yónnee yow. ay vidéo yoo xam ne dafa doywaar te képp ku ko gis ku ne loxo ub gémmiñ te tibbul ceeb. moo tax nag nee na mais euh, chef de quartier bi moom nga araamal ko ndax jox nañ ko ki wàccoon mooy chef de quartier bi gaañu jibi aan nee na doomam dañ ko mujjee jox mu donn ko. Oh. xam nañ ne critères yi moo ko yor. préfet man xamoon naa daf ma bañ daf ma bañ préfet man rek la bañ préfet man rek waa doy doy na lii roowul eh sama xaalis na génn yow sama xaalis na génn yow laa la bëgg a waxal yow yow laa waxal sama xaalis na génn ana lobotif ku fi def lobotif ku fi def locomotive fii kan la da ko waroon wane man kenn du ma tuumaal. nee na preuve yi mi ngi ci moom. dafa waxul dëgg dafay porte plainte man. damay porte plainte ci procureur. man de préfet laay porte plainte pour ma accuser pour ma accuser le voté fictif. Eh, bu ma ñàpp xoolama laala. dégg nga li ma la wax eh. sama xaalis na nga ko génne nag yow. ban xaalis sama xaalis bi yëpp yaa ma ko yóbbee xam nga kii xaalis ma ko jox. joxe wu ko na nga génne sama 2 millions. yow nag neex nga nag yow nag yow nag neex nga nag Bertafa yow tee ngaa réglé nag yow tee ngaa yam préfet li muy wax xam naa ko xam nga ko yamal nag Ah. yamal nag foofu laa am lu may lu may sekk ak moo gën a ñaaw nag waxuma ak yow samay wax pour ñu rafet ñi la. loo def ñu politique loo def ñu politique waxuma la ñu may wax ci parti Mbaye pour yow maa tay yow la ñu wax ci parti Mbaye soo dindi woon sa maquillage bi dindi sa xeesaay soo demee ba parc an ñu téye la dugal la ci biir daañu la nii. Eh, xanaa boobu sa jëkkër du romb. yow yow mii yow mii jigéen yaa du romb. xanaa sa jëkkër du romb la yow kii maquillage nga ko ëppalee ak xeesaay awa rek lee rafetoo. waaw yow na Fatou Kiné xam nga lan la yow xam nga lan la nag damaa bëgg nga génn ci man nga mel ni ku béeru cin bul wax ak man Fatou Kiné bu dee man kese bu dee man kese maa tay sàcc bu bon la lii lépp yaa ma ko waaye baax na. waa jël la nga eh, romb leen. Eh, yow Ah, ko jokko maa jox jokko leen dal leen rek xam na boppam waa kii man maa ko xañ mais yow man maa la ko xañ ñëw sama parti ñëw ma dafa jar di lekk kan moo ko xañ man maa yàlla man maa yàlla ah, waaye yéen nag neex ngeen nag te doy waar ah, waxuma ak yow eh, hmm. moom moo xool bu mu neex ko mu jox ko ak ak ak ak ay condition yow damaa xam la ma def la ma la xale yi la daan te setuñu te duñu xale kese am lu ñu rax xale yooyu la yow nag moom yow moom yow moom nee nga da ngay wax may nu ko génn may nu yow du nee nga da ngay wax may nu ko génn yow xam nga waaye xam day wax pire na de. may nu nga génn. ah. xale bi ñeme na leen trop muy wax ak yéen di leen nan la ñu ñemee ni lu xew. xale bi tax mu ñeme ah. am nañ preuve ci kër gi de yan preuve la am. am nañ preuve ci kër gi xale bi bu muy génn dafa léebu. am na am nay preuve moytu leen xale bi. kon may dafa waa banque na benn feeñ na beneen na ci des. dara feeñut. Ah. xale bi sos la mën ak créer. ah waaw baax na. xale bi dessinateur la day créer borom mi lijjanti la am na fit capable na du dëgg. soxna soxna ñun waxu waxu waxu montage yi waxuñu ko mm. nun nun nu yàq suñu dara nun yomb na ndax boo jëlee ay photo nit photo seen bopp jël seen bopp collé ko ci yeneen looloo xew ci réew mi man loolu ragaluma ko man man ay lomotif ak ay yooyu lijjantiwuma ko man dafa am leneen lu may lijjanti. waaw da ngaa photo yow fa laay oh, loolu dangaa génne dem dogg fenn ñu foto la. wala fa fa laay foto ma gu toll ni man. Ah. léegi te ñoo dem ci préfet ñu laaj ko ba xam affaire bi mu dara parce que préfet man yàgg na maa woo di ma wax ñëwal sama parti ma ne ko ñëw ma xamoon naa lii lépp dina ko créé nii rek la ñuy def loo bëgg a def ci quartier bi ñu politiser ko yàq sa der xamoo kenn banque comment xam <laughs> comment xam banque pour lan looy wut banque waaw. mu leboon am ngeen fi. waaw. demal ci rajo jàkk ji. rajo jàkk rajo jàkk mbetteel kiy tàgge. demal nga tàgge ma ngir yàlla yonente bi. Moustapha mi doon xëccoo meer moo gaañu léegi wax demal dimbali ma wax ma loolu. Moustapha mi doon xëccoo meer moo dee léegi. doo meer chef de quartier. bàyyi naa. ah di nga bàyyi. gërëm demal tàgge ma ngir yàlla. barki Rasulaay du ma la tàgge. Moustapha ma la tàgge ku deew. toog sa la bàyyi sa jooy kilifa di jooy. loo gis mën nañ koo lijjanti. na moo tax man mooy collé ay ay nit ay nit di def abi ay ayib saay ah, na waa de ma tif de moom. ba bul def yaramu neen docteur banque bi nga doon wax fan lay liggéey. xaw ma docteur xaw ma kenn. Hmm, eh, xam duñu ay docteur la gàcce topp man de fu ñu dafa dañ maa daaj ci siis bi. maa du leen ba nëbb ko bu leen bu mu ko yëg. kooku dem na fu dem. doxi na moom moom moom yi bokk ci. soxna may ma ndox ah. ci digg weeru koor nga ne may ma ndox ma naan. man woorul kenn man soo ma fa laay waral. du ma man maa am tuyaaba man maa waral loolu yàlla léegi lan la. tonton Tafa gëmal yàlla. gëmuma ko gëmal yàlla. fii ñi fii xëccoo ay kii yeeg. gëmuma ko gëmuma ko te te amuñu ci dara gëmuma ko gëmal yàlla. gëmuma ah, boo ko jëloon tey ji ne yow yaa ko fal doo ko fekkee nga dee ma gënal ma dee ak siitar bi moo ma ma dee ak siitar chef ah, nag. ah eh, déedéet eh, julli du xaat di nag julli julli du def nii bàyyi sa jooy yi ki ne lu ciy pexe lu ciy pexe Iya, hari xar yi ma misi woon nga jox lekk ko wala nga jaay ko suñu kër gi xanaa ay ko dem ma ngir déception ah ñu bëri ñuy toxu na wala ñu bëri ñuy daw man lekk ko ci nii la ñuy dawee man kay damay xalaat ñu rek fi ko mu nattu la mm, yàllaa la ko teg. waa teg bi may dugal drapeau bi. Oh. ma jaaxal lomotif. Ah, déet moo def vidéo bi. awa ba ci boppam. waaw. moo gis vidéo fu mu dem fu mu demee ci benn kër faam di fa lëmbal. lëmbal taw. su ko ba set wecc. di lëmbal vidéo ba ci portable aw. kon aw ba moo fiwteeloo vidéo. waaw dëgg la de. xale li mu def noonu. juumu ci de moo def dungu. Mhm. di lëmbal vidéo ba nga aw. ci mag jëm. kii de su doon sama jëkkër dibi naa ko bu yàgg maama supp ko. ah waaw wow. awoon xam nga lan la ci jógteem xaalis di ko ci chantage ndax temps yee daa yoroon ay millions. waaye yow yow yow ana mag ak lëmbal tontoo tafa ak enchaîne yu baax yii. Ah, kii xam nga ne fu mu sëgg lëmbal dëkk bi toj. ay ay waay ay bàyyi leen li ngeen wax lëmbalam bëgg naa koo gis. yow xoolal tontoo tafa rek. lu ñuy bàyyi ah. moo juutu lëmbal nag. fii eh. ku fi lëmbal nu wax bu perte chef de quartier bii. moo ko teg boppam.